à accéder au stade. Les supporters déjà sur place attendant l'ouverture des portes, des portes. Les deux équipes ont fait les euh, derniers réglages. Le match sera sifflé. Euh, donc euh, par un trio euh, euh donc euh, de de la célébration de Tivaouane édition 2020 Babacar Sow Babacar Sow bonjour yusalluuna ala nabi kuy wax waaw kuy wax li may wax li may wax li may wax yow laa ji déglu waaw waaw inna allaha yusalluuna ci alquran la woo moom inna allaha yusallu ala nabi yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi al amru mina subhanahu wa taala am dafa feddali rek Yeah. Long one. La déclaration donc euh, du Khalif général des Tidianes d'un moment à l'autre concernant la célébration du Gamou de Tivaouane, Tivaouane la Sainte, édition 2020. Euh, donc euh, le Khalif général des Tidianes euh, qui se prononce, une déclaration qui est euh, faite par Serigne Mbaye euh, Sy Abdou amiin yaa rabbal ñu Aziz mu jox leen programme. gàmm ñu doon ci kii ci waxtu bi dafa war te am sëñ Habib sëñ Mansour borom daara bi ak sëñ Abdou Hamid mi nga xam moo yor service communication gàmm ñu door ci jéggalu leen ñoom suñu mbokk xabaar yi ci waxtu bi ñu woon te amoon ay tëkk-tëkk yu tax jataay bi war a ba demee nii bi nii lay tëjee sëñ Lamine dina yëkkati kàddu rek gàtt doogu jox sëriñ bi nga xam ni moom la xalifa général des Tidianes wax mu def déclaration ñu leen di xamal ni du am question déclaration rek ngeen baal naa mu jox sëñ Abdou Lamine pardon jërëjëf Abdou Aziz asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gannaaw bi ñu nuyoo suñu wéyu turu tedd bi nekk ci suñu wet dañuy suñu bàyyi yi Si Abdul Aziz ñu ñaanal ko yàlla yàlla bàyyi ñu ko ci suñu kanam woote moo mag nag magam yu baax yi nga xamante ni ñoo teewaay sant leen ci seen ànd ak Cheikh Al xew-xew boo xam ni way am daan ngeen àndandoo ñëw fekk si tontu woote bi nga xamante ni xalifa bi woote na ko ngir dégtal leen li mu bëgg a dégtal julli dégtal ko Sénégal jël ko adduna message bu am solo bu bëgg a joxe te sant suñu wéy yi mu ñëw dégtal ko ñu ko war a def kon nañu sant leen ci seen ñëw ak lu nu gudde dañu koy jox moom moo xam li mu leen war a wax ñu déglu ko suñu nopp naataan ko son du wootee li nga xamante ni bu noppee xalifa bi woote na joxe ci message dégtal leen ñi mu bëgg a déggee nit ñi ñu ko soxla ñu soxla su ko defee foofu la ñuy yamale waxtaan wi Abdoulaye wax na ko déclaration la du point de presse nga xam déclaration la du point de presse dana ñu déglu ko di leen santaat organe de presse yi teew ci turu xalifa bi di ñaan ñi mu dugg yàlla yàlla defal ndam ñu dugal ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon na sëriñ bi sa jàll su ko defee foofu la ñuy yamale waxtaan wi Abdou Aziz wax na ko léegi déclaration la du point de presse nga xam ni déclaration la du point de presse kon nag ñu déglu di dellu santaat organe de presse fi teew yëpp ci turu xalifa bi di ñaan lii mu tudd yal nañ ci yàlla defal mu tudd ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon na sëñ bi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك ومجد وشرف على مبعوث رحمة وهداية للعالمين sayyidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain xadaraati saada ixwaani axawaati fillahi fillah niyaabatan anil xalifati aqulu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. wa aleykum assalaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki jullit yi bu ñu mustoo ci bakkan ak seytaane yàlla ci yàlla boole musal ñun ñëpp ñu de wax ji rek ci tur borom bu tedd bi subhaanahu wa taala te mooy bismillah di santati yàlla bu baax ci daje bi ñu may ñu daje woon ndax defe naa daje woon ngeen kenn Ndakaaru waaw ba mbokk yëpp daje woon usra bi daje woon waxtaan ba pare ñu dese rek jottali li nga xam ne moom la xalifa bi wax ni mooy am insha allah ndax xew-xew bi ñu jublu kañ la tëj jàkka mars boobu ba léegi junni wuñ ci kañ la tëj jumaa yi mars boobu ba léegi wuñ ci ak ayit yi fi jaar korite tabaski yëpp tabaarakallaahu rek kenn ku ci nekk mën nga cee sukkandiku ba du am te dañ ko def moo sax wax ji na yem ko boo delloo ci alquran am na lu ci wax waaye boo demee ci médecine bi fi toog fas alu in kuntum la taalam waaw te feebar la boo xam ne bii bari nañ ñoo xam ñu ngi dem di ko yóbbaale te xamul fi ñu koy dem kon nag sëriñ bi daal nee na dañu bàyyi incha allahu ba déwén ñu gam dee gàmm gàmm jërëjëf euh, mu nekkoon déclaration boo xam ne nag Serigne Mbaye Sabdi def na ko euh, dañuy ànd ak Babacar Sow mu ñu teewal foofu ci Tivaouane Babacar xibaar bi wàcc na léegi gàmm gi dañu daal du am na mu war a amee maanaam ci wàllu ziar li mel euh, léegi tuuti ñu ànd ak kii Babacar xibaar bi wàcc na ñoom nag logique bi ñu toppoon ci la ñu topp ndaxte ren jii nii li lépp loo xam jëm na ci ay jëm na ci ay ay te bañ tëjee jumaa yi ba léegi mars ba léegi bañ ko bañ bañ ko tëjee ba léegi bañ tëjee jumaa yi ba léegi julliñ fa tabaski julliñ fa korité logique boobu lañ topp te tamit ci wàllu médecine loolu daal lañ wax te rassemblement ak li ñu mel moo tax ren daal ñu bugg ne duñ ñu nag amal gàmm ci format bi ñu amee l'année dernière kon gàmmu chez soi lay doon loolu la nag tuwaawoon décidé dégg ngeen li kàddu yi nga xam ne Serigne Mbaye Sy euh, Abdou rotal na ko ñu dem ànd ak kii di Babacar Sow su fekkee àdduna Babacar saw ñu ngi lay nuyu waaw waaw ñu ngi lay fay xam naa ni nag euh, ki nga xamee ni moom moo di Serigne Babacar Sy Mansour euh, ci kàddoom la Serigne euh, Babacar Sy Abdou Ndiol Fouta doon waxee léegi dañuy xaar la version française parce que ki ko war a def mooy Mouhamadul Amid Mouhamadul Amid Sy di ki nga xam ni doom la ci sëriñ Abdou Aziz Al Amid moo fas yéene dafa français tegtal leen ko. asalaamaaleykum vais vous faire lecture de la la l'essence de la quintessence du message extrêmement important que Serigne Babacar Sy Ibn Abdel notre oncle vient de vous délivrer au nom du Khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour

dans notre pays et dans le monde entier. Après avoir pris les conseils avisés des hommes de l'art et des jurisconsultes conformément à l'injonction coranique, Fas'alu ahla dhikri la ta'lamun, interrogez les détenteurs du rappel si vous ne savez pas. Après une large concertation avec la famille de notre vénéré maître El Hadj Malick Sy conformément à la devise de la large concertation dans le Coran wa amruhum shura baynahum que Serigne Babacar Sy Mansour a décidé de s'adresser ce jour mardi octobre aux musulmans du Sénégal et de la diaspora cette adresse vient en cohérence avec les positions qu'il a déjà prises jusqu'ici. Position fondée sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa qui disait dans un hadith célèbre, la peste est une sorte de malédiction. Si vous connaissez un pays dans lequel l'épidémie s'est répandue, n'y partez pas. Et si vous vous y trouvez, n'en sortez pas non plus pour la fuir. Celles-ci fondent également sur les traditions recueillies des guides de notre voie. Ils se sont toujours distingués par l'assumation de leurs responsabilités et par leur bienveillance dans la vie ou l'attitude de leurs corps légionnaires, la vie

aux médecins, rien que pour honorer les rôles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa vous devriez les suivre à propos de l'interdiction d'entrer dans les zones affectées par l'épidémie ou d'en sortir. Fin de citation. Fort de toutes ces considérations, le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a jugé utile et salutaire d'inviter les fidèles à célébrer le Mawlid de cette année dans l'intimité, dans l'intimité de leur foyer. Car ce qui lui importe, ce n'est ni la lettre, ni le nombre de fidèles mobilisés, mais l'essence de cette commémoration qui, en tout point de vue, n'est que la reproduction du modèle prophétique tel qu'enseigné par Moulana Cheikh Al-Hajj Maliki Lui dont l'invite rigoriste, fustigé qu'on la célèbre dans l'ostentation et la promotion de l'interdit alaa adimu laylal wiladati hikbatan ida lam yakun nahwa alharami hudud nous racontons que la première édition du Maoulid célébrée à Tivaouane l'a été par lui et par son disciple et ami El Hadj Rawane Ngom de Pan se partageant le Coran ils ont psalmodié tout au long de la nuit Serigne Babacar Sy Mansour Sy à juste titre l'attachement que vous portez à Tivaouane et à son guide éclairé. Il mesure la profondeur de votre dévouement à prendre sur vous le risque pour sacrifier à la tradition qui veut que depuis 1902 et sans interruption le Gamou ait été toujours célébré dans la ferveur, la communion ici à Tivaouane. rien ne lui ferait plus plaisir que de pouvoir communier avec vous à nouveau. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Or, l'impossible de communier rime avec le coronavirus, qui, plus qu'une maladie, est une malédiction et un fossé qui n'est franchissable qu'au péril de notre santé et de notre vie. À l'image de cette anecdote racontée à propos de Serigne Babacar Sy, à qui les disciples Dakaroise de Cheikh El Hadj Malick avait adressé la doléance de souhaiter le voir de près. Il dit à El Hadj Père Diop qu'il mandaté demande-leur si elle préfère me voir aujourd'hui et ne pas me voir demain ou si elle préfère attendre demain et me voir dans l'assemblée de Dieu aux côtés de Cheikh Al Hadj Malick Fin de citation. Or, Il existe mille façons de rendre grâce à Dieu et de reproduire le modèle prophétique. Il y a mille leçons, mille chemins de vie pour célébrer le Maulid. Une action de grâce et de solidarité faite ce jour à l'endroit d'un coreligionnaire nécessité peut être plus salutaire que mille prosternations. Une prière à l'adresse d'un malade trouvé sur un lit d'hôpital peut avoir plus de bénéfices que nos propres actes de dévotion. Pensons à tous malades de Covid dans nos hôpitaux et pour eux, prions ce jour. Une prière également pour tous ces morts remportés par cette maladie est à coup sûr une forme de reproduction du modèle du meilleur des hommes, celui-là même dont le Coran nous assure qu'il n'a été envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Une pensée et un encouragement pour nos médecins, nos aides-soignants, qui depuis huit mois n'ont pas de répit et veillent sur notre santé et celle de nos proches, peuvent être une autre forme de célébrer le Maulid. Le Maulid est également un prolongement de l'université populaire de Maodo. Il est également mille façons de rendre le savoir accessible à tous par l'alchimie des technologies de l'information et de la communication, mais aussi par les médias. C'est donc à cela que le Khalif général des Tidjanes nous invite à savoir célébrer autrement cette année dans l'intimité, dans le refus de la fatalité, dans la prière profonde et sincère, dans la prière sans foule et la célébration sans bain de foule, celle menée dans l'humilité de nos sommières, dans le partage, l'amour du prochain, dans la quête de l'agrément salvateur, dans la quête de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète salvatrice de l'homme au parasol Maulana Cheikh Al-Hajj Malick que ceux qui sont présents fassent passer ce message à ceux qui sont absents wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa la la du modèle euh, prophétique parce que d'après cette euh, sortie donc euh, du Serigne Babacar Sy Serigne voilà euh, oui euh, une dernière prière une dernière prière euh, de Serigne Babacar Sy euh, en tout cas euh, oui. Mmh. oui la prière la prière de de de donc de cette assemblée. Mhm. voilà ñu déglu nag ñu ñëw ci wàllu ñaan ci war a ñaan léegi jeex na ren daal li ñu mën jàpp moom mooy gàmmu gi du am nañ ko doon amalee nag ci at yi ñu génn. ñu àndaat demaat Tiwaawoon euh, li ñuy def rek mooy euh, tàmbali ci loolu sax xuus ci journal bi rek ànd ci ak euh, Babacar Sow mu desiwaat ñun ci décision yu mag yi nga xam ne jël nañ ko tey ji foofu ci Tiwaawoon Babacar. lenn waralu ko lu dul li nga xamee di la pandémie du coronavirus di feebar boo xam ne dégg ngeen li ci Serigne Babacar Sy Abdou wax di Ndiol Fouta wax ko ci turu xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour ki nga xamee ni moo di Cheikh Hamid Sy. Euh, di président euh, comité d'organisation gàmmu gi di doom ci Serigne Abdou Aziz Al Amin daal di ci dellu di loo xam ne dafa dëppook ak euh, sunna prophète Mohammed ya ni ñu ko waxee rek ni daal su fekkee ni lenn gàllankoor na ko duñu ko def kon daal loolu la ñu jàppandi fii la principale information l'application sinon la reproduction du modèle prophétique donc cette année le Gamou de Tivaouane n'aura pas lieu, le Gamou 2020 qui était prévu, enfin il mais euh, c'est le rassemblement euh, qui n'aura pas lieu. Donc chacun va célébrer euh, donc la nuit de la naissance du prophète Mohammed. chez lui, c'est tout ce qu'on peut retenir de cette auguste assemblée. les mesures barrières ont été respectées. Tout le monde a eu son masque avant d'accéder, mais il n'y a pas eu également beaucoup de monde à part sur donc le présidium. le représentant du khalife euh, Serigne euh, Sy Mansour, Serigne Mbaye Sy Abdou, euh, à ses côtés euh, Cheikh Cheikh Hamid, président du comité d'organisation du Gamou, mais également Serigne Abib Sy ibn Serigne Mansour. Voilà, donc cette année, le Gamou sera célébré, que chacun le fasse chez lui, donc donc comme euh, l'a annoncé tout à l'heure les autorités religieuses euh, l'ont annoncé les, les autorités religieuses de Seydi Hadj Malick Sy donc euh, depuis euh, ce coronavirus donc il n'y a pas eu euh, d'assemblée au niveau des mosquées ah. ni également au niveau des voilà c'est ce qu'on peut retenir en attendant Babacar Sow depuis Sud FM Porte la jërëjëf Babacar Sow tënk rek ci wax moom mooy ren nekk nañ doon amalee gàmm gi du am Euh, ku nekk nag sa kër ga koy gàmmu dajale ak du am ndaxte rek li ko waral moom moo jëm ci Covid 19 bi nga xam mbas mi am euh, du ñàkk ñu jël soit suñu yeneen i xibaar ak kii di Babacar Sow di ko sant gërëm bu baax a baax moom ñu doon toppal di jëm ci déclaration bi nga xam ne nag ñu ngi ko doon amal foofu moom mooy waaye nag li leer ba leer moom mooy euh, ne rek moom mooy nag con disciple Serigne Cheikh Diane Al Maktoum di xamal na ñoom nañ amal gàmm gi nag foofu amal nag ren ji nii ca champ des courses lay doon loolu nag ci dëkk bu sell boobu di tuwaawoon loolu nag di suñu mbokk mustas diine war mustas si daati yam ñoo ko xamle ci wàllu xibaar ba tey ñu wax ci Sédhiou ak accident yi xam ne nag dafay am te nag ay dawalkatu welo nag ñu ci dugg seen loxo bu baax a baax loolu kat day faral di bëri li muy am bu baax a baax moo tax sax ñuy sàkku ne ku nekk jël sa matuwaay mu dal ko waaye tamit dawalkatu welo ñi nga xam ne rek moom moo jëm nag ci wàllu woowu noonu ndaxte kat accident yooyu dafay bëri lool te di indi gàllankoor nag ci li nga xam ne rek moom moo jëm ci wàllu transport routier bi moom mooy dem ca Sédhiou ànd ak ki nga xam ne moom moo nekk Moussa Dramé ay xeetu ci nemmeeku ay moto taxi Jakarta mu ngi wéy di bare fii ci diwaan bi te bu ci mujje mu ngi amee naka démb ci ngoon ci boore stade municipal dañ ci teewlu seede ñenn ñi fi askanu fii ci diwaanu Sédhiou. conducteur moto Jakarta yi dañoo nekk ay soutien de famille daa am ñoo xamante ni sax loolu moo leen permettre daal ñu am soxna tabax ay kër faj seen soxna. il faudrait que ñu organiser euh, secteur bi souvent booy amuñu euh, permis de conduire. moo tax ñu gis suma accident yu gën a fréquent. dañ leen di ñaax rek nañu daw naan te waa bi lu mu wax ñu ko respecté. daal di sol seen casque mais da ngay gis jakarta man buy dawal te du sol casque te du respecté code de la route muy fiilee ti supporté client muy dem Assane Dramé nekk njiitum dawalkat moto taxi jakarta fii ci diwaanu Sédhiou moom it mu ngi joxoñ baaram tuuma ay ndaw yi ñoo xam ne ay ndongo daara lañ di ay écolier maanaam ñoo xam ne fi mu toll nii ñu ngi ci ay vacances waaye di war moto yi di dugg ci circulation ci semaine bii ñu nekk yaakaar naa enregistré nañu trois accidents dont benn grave boo xam ni euh, chauffeur fi may wax ak yéen ni ñu ngi yóbbu hôpital régional bu Kolda mandat pour des li waral loolu tamit euh, euh, gis nañ ni temps yi élèves yi nga xam ne dañ nekk ci vacance euh, jël nañ moto nekk ak ñun ci tali bi ak ay xale yi nga xamante ni seen âge matagul pour ñu dawal moto. donte sax accident yi mu ngi amee waaye it alkaati yi di agent de police urbaine fii ci diwaanu Sédhiou ñi ngi wéy di amal càmbar ci yoon yi ngir lépp loo xam ne si moo di wareef ñi sàmmonteeg moom li ci desandi moo di wéy jur yi ñi fexe it ba ñaax seeni ndaw yi ci kër yi ndax it war moto rek la ci may sañ bokk yenn xeetu tolof tolof yoo xam ne it musiba yi ñuy indi ci tali yi ñu war ci moytandiku bu baax a baax ki si doon jokkoo ak yéen ci Sédhiou li nga xam ne rek moo jëm ci wàllu mbas mi te ñu ne fukki nit juróom ci am am na tamit ñu la prévention ñu dégg ko mu ci leeral. ci ñeent téeméer ak ñaar fukk ak ñeent test yi ñu def. fukk ak juróom ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci ñaari kaa contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro yi am nañ ci juróom benn cas yu jóge bitim réew te ñu ngi duggee aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci juróomi ñaar juróom-ñaar cas ñi nga xam ne ay communautaire lañu mooy ñi nga xam ne nag jot nañ ci mbas mi waaye xamuñ fu ñ ko jëlee wala ki leen ko wàll te ñooñu nag seen lim nii la tëddee Bourguiba am na ci benn Xombol am benn Médina am benn Nioro am benn Wokam am benn Wuro Sogi am benn ak sacré am benn. téeméer ak fukk ak juróom-ñett si malade ñu entré woon hôpital wér nañu bës ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla ànde juróomi cas ñu nga réanimation. benn malade ñàkkul bàkkanam bu su démb altine fukki fan ak ñaar ci weeru octobre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bësu tey daleko ko ci kaabu njëkk ba senegal wëññi na fukki junni ak juróom ak ñetti téeméer ak juróom-ñaari cas ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak ñett ak juróom ak juróomi téeméer ak juróom-ñett wér nañ si ñetti téeméer ak fukk ak juróom ñàkk seen bakkan mu des junni ak ñeent téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi. ñu wax ci ubbiteg école gi war a am na fukki fan ak ñaar ci weeru novembre bi ginnaaw weer ci des nag ñu jàpp ne ñu ngi koy préparé baax ba di jël ay matuwaay nag laal xaal nag directive ministre bi ñu wàllu njàng meek njàngale mi euh, ci li nga xam ne kat moo di euh, syndicat national des enseignants des écoles catholiques du Sénégal na ñoom nee nañ kat ñoom. yëpp noppi na donte sax da am na nag ay équivoque yoo xam ne nag ak ay yu bëri yoo xam ne leer woon leeral nañ ko madame Diop Yvonne Keita lañ kenn ci ñoom syndicat bi ci micro Adja Issa Niang enseignement privé tiitaanga jaru cee am ndax moom daanaka ba ñu defee ouverture yi vingt cinq join bi rek déjà na suñu lépp sotti réglé nañu école ya ministre ba jot visité école ba mu jot a visité gis na lam fa fekk xam na ne kot ñi seen matuwaay mat na seen taxawaay dëgër na kon amuñu tiitukaay loolu nag dafa continuer rek dafa law ndax ñun ba léegi tegguwuñ suñu loxo ci defar baag waajal bi di ko def nag di waajal ouverture bii di ñow donc li des rek mooy xëy na déglu borom kër gi borom euh, ki jiite enseignement euh, éducation ci Sénégal muy ministre du taala ay directive am ndax ñun it lépp lu ñu wax lu mu wax rek dañ ciy sukkandiku. bien que am na lu ma ci war a jàngat parce que damay dégg toujours chef de l'État en matière d'éducation dafay wax toujours dans l'inclusivité maanaam ñëpp lu ñu war a boole ci toogaay yi ñëpp la ñu war a boole ci waxtaan wi te man loolu ñun gisaguñu ko ba tey à notre niveau ñu ngi waxtaan ak waajur yi ndax dama ne parents d'élèves yi ñun dañu yàgg lëkkaloog ñoom yow ñu ne la waroo fay di di di nërmal sa xel bul fay waroo fay parce que chef de l'état joxe na léegi li man leeral naa la chef de l'état joxe na mu tollook na mu war ñun xeebuñu ko nag ñu ngi ko ciy sant di ko gërëm fa ma toll dama koy wax la mu mën la ñu jox la mu mën nag bu ñu ko joxee ñu ne parent d'élève bu mu fay yaakaar naa ñooña dañuy wut tur wala ñuy ut riir ni ko xale yi naan bës waaye defaraluñu chef de ta waaye nit ki kenn du ko conseiller ci loo xam ne bu subaa da koy dugal ci guuta te loolu lañ gis ndax parents yi nag fi ne xam nañu bu baax li am xam nañ ne leeral gi ñu leen leeral ñetti weer yooyu ay trois mille francs par élève pour ñetti weer xam nañ ne fayalul kenn te enseignant ba ñu toogee dañ leen doon fay ndax kenn mënul ne lu tax ñu toog ñu di leen fay xanaa du ñu enseignant seeni moromi enseignant toog ñu di fay ñoom ñu toog waruñ leen fay ndax lan ndax privé lañu ñuy fay ay charge comme ñëpp di fay impôt di fay caisse sécurité sociale di fay IPRES di fay seeni i charge comme ñëpp kon nag ñooñu warul leen la xañ dara dara dara dara dara dara dara ku leen jàppalewul waroo leen a daaneel. ñu wax ci li jëm ci domaine agricole euh, communautaire nekk fële ca Matam bi nga xam ne nag ñu ko fa defal loolu nag ay at a ngi nii fi nag am na lu bëri loo xam ne soo xoolee ci bokk na nag ñàkk financement ak li ñu war mooy xibaar bi nga xam ne ministre bi njënk wàllu ndaw ñi moo ko joxe dañ kii di. Abdourahmane Dieng lu ëpp ñetti at a ngi nii askan wi yeewoo ci diwaanu maatam ñu ngi leen doon naxee ak lii di programme domaine agricole communautaire wante tey jii lépp leer na gannaaw bi nga xam ne kii di jëwriñ bi ñu dénk ndaw yi di Néné Fatoumata Tall dikk na daal di gisanteeg ndaw ñi ci noonu ci la xam ne ne dakku maatam bi ba léegi amagul financement. pour Matam j'ai trouvé une délibération sur place. mais ci ma fi fekk mooy ni bàyyi nañ fi suuf nga xam ne fi bi loolu loolu mooy dëgg te ñun ay ndaw lañ dañoo war a waxante dëgg. parce que nous sommes appelés à travailler ensemble tout temps. donc yile kàddu nga xam ne moom la jëloon bi ñu denk ndaw ñi yëkkati neexul benn yoon ndaw ñi nga xam ne daanaka ñu ngi fàttaliku kàddu yi nga xam ne moom la fi Mamina Daffé yëkkati yoon ci atum 2017 moom mi waxoon ne dakku Matam danañ ko tàmbalee ci saa si. dak bu ñuy samp ci Agnam mooy dak bu njëkk fii ci diwaanu maatam te ci yaatuwaay bi dana toll ci junni hectare te lu tolloog ñeenti junni ndaw dinañ ci mën a xëy directement dañoo jot ndigal ni war nañ ko defar léeg waruñu xaar dara. reçu l'instruction de le réaliser tout de suite. kàddu yi Mamina Daffé nag Jean-Pierre Senghor ñëw na daal di koy dëggal ci atum 2017 ba léegi moom mii duñu xamal ni fii ci Daku maatam am nañ fi lu tollook juróom-ñaari junniy hectare te mu war a may xëy lu tollook juróom-ñaar fukki junniy ndaw ñu fàttali ne kii di jëróom bi ñu dénk ndaw ñi dafa dikkoon fii ci diwaanu maatam ngir daal di xabaar ndaw ñi ne dinañ samp ci département Matam ab maison de jeunesse et la citoyenneté mu nekkoon Abdourahmane Diène fii ci Matam pour Sud FM. mu nekkoon Abdourahmane Diène ba tey ñëw kenn ci wàllu xibaar ci tënk rek ak li nga xam ne rek moom moo jëm nag ci euh, li nga xam ne nag moom moo nekk ci wàllu contention ci collectif des élus chambre de commerce ak tamit euh, li nga fi nekkoon tey jii délibéré bi nag jàpp nañ ko ba ñaar fukki ak ñett ci weer octobre bi nga xam ne moom la ñu dëgmal si du ñàkk nag ñu àndaan ceeg ki nga xam moom moo nekk euh, kii di Josette Biagi Kali Euh, ci xibaar tey ak journée mondiale de la prévention des catastrophes naturelles tey jii ko amal fukki ak ñetti weeru octobre ci ñetti at yi nga xam ne nag moom la ñu at ñaar nag yëf yi dafa takkar naa si loolu ba ñu dugal ci nag koppar yu bëree bëree bëree bëri nag yooyu bokk na ci wàllu mbënd mi ak li ni mel moo tax sax nag euh, fi mu toll nii ñuy nekk bés boo xam ne dañ fiy màggale lépp loo xam ne journée mondiale des catastrophes naturelles ñu koy amal ji euh, fi nga xam ne rek moom moo nekk ci àdduna bi yëpp fukki simili ak juróom-ñeent moom moo toftalu ci benn waxtu ne surtout ñu dalal euh, Odile Minkelaan ci li nga xam ne rek moom moo jëm ci wàllu journal des sports bi nga xam ne ci gën a fës nag du ñàkk dina ci bokk jongante xarit bor am ci diggante Sénégal ak Mauritanie di match boo xam ne nag euh, jàpp nañ ko 19 heures lay doon ci stade Lat bu Thiès Odile ñu ngi koy nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Malick Ndiaye di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy déglu ni nga ko waxee xabaar yi li ci gën a fës moom mooy jongante xaritoo bu am tey ci diggante Sénégal ak Mauritanie dinañ ko amal ca stade Lat Dior bu Thiès bu 19h jotee muy jongante xaritoo boo xamante ne euh, askan wi daanaka ñu bëri duñ ko teewee ndax ne nañu euh, juróom-benn téeméeri nit képp ñoom ñoo am autorisation daal di dugg ci stade bi ndax xam ngeen ko lii di wopp bi di coronavirus moom moo ko waral kon foofee ca stade Lat Dior bu Thiès fan nak la ñuy daal di amalee ah, bile ah, jongante foofe sax la ñuy daal di dem ca stade Lat Dior bu cees ah, ca Thiès suñu correspondant bi nga xamante ne moom moo fa nekk di Babacar Ndaw mu dikk ak ñun ndax jamono ji ñàkkul ni mi ngi foofee ci stade ba ubbeeguñu nag bunt yi waaye moom dafay dem pour xool rek ndax nit ñi yegg si nañu am déet Babacar Ndaw oui euh, Odile ñu ngi lay nuyu ni nga ko waxee noonu la ñu ngi fii li nga xam ne moom mooy stade Lat Dior waaw euh, xam ngeen ne nag euh, bruit yi sax moo waral dëgg-dëgg bi xaw na xari euh, tuuti ñu ngi ci waxtaan bi wax nga ko ah, Sénégal Mauritanie juróom-ñaari waxtu si ngoon 19 heures lay tàmbale mais déjà billet yi moom depuis démb ñu ngi koy jaay donte nag place yi ñu soxla woon sax jaragul parce que billet yi aussi ñeenti junni si benn billet ba si ah, fukki junni bi ñu bëgg mën a jënd donte juróom benn téeméeri place la ñu autorisé pour ñu jaay ko mais ñu ngi jaay billet donc ba léegi jeexagul pour li ñu prévoir beneen bi ñetti waxtu la ñu wax ne la ñuy ubbi stade pour ñi am seen billet mën a ñëw Euh, dugg xaarandi li nga xam ne moom mooy euh, match bi war a tàmbale équipe yi également ñu ngi leen di xaar euh, ci kanam booru 5 heures ak 6 heures pour ñu mën a def li nga xam ne moom mooy jumtukaay ci jongante boobu jàpp na ne daal match xaritoo la naam mais beneen bi ñu bëri ne amul enjeu au la Covid bi nga xam ne moom la tombeel ren donc pour. matuwaay yooyu yëpp tax na ni mu daan xumbe xumbeel bi moom des na donte boo ñëwee fii di nga gis ne barrières yi euh, monté nañ ko lépp ci buntu stade bi police ñëw nañu depuis ce matin euh, wër stade bi mais stade bi également taw ren yi waral na euh, stade bi yëpp ñax la woon mais bërki dem ba kuréel yi di UCG ak ndaw Thiès yi jóg nañu dimanche yëpp yéen a fi bàyyi donte. Euh, seetaan dina xaw na tane pour euh, joxante mais ba léegi ñax yi euh, ñu ngi fi donc situation boobu la ñu nemmeeku fi nga xamante ne moom mooy fii si Stade Lat Dior Thiès yu bëri ñeen ñi dañ ne daanaka match bi yëgaluñ ko seen seen yaram ñeneen ñi ne match la boo xam ne ginnaaw défaite bi ñu am contre Maroc tey Sénégal war na def tout pour gagner mais avec la manière Mauritanie doonte match amical la. Euh, pour euh, vraiment wanewaat ne moom mooy euh, numéro un fii si Afrique muy jongante boo xamante daal ñu ngi koy xaarandi fileeg 19 heures fii ci Stade Lat Dior di wax matuwaay yi jël nañ ko surtout ñi nga xam ne ñoo yor wàllu organisation ñu ngi si dernier réglage yi pour que daal ngoon ñu mën ko def si jàmm di faral juróom-ñaari waxtu lay tàmbale stade bi ñetti waxtu lañ koy ubbi. Euh, Odile mu ngoog euh, Babacar Ndaw ñu koy jaajëfal bu baax a baax kon ni ngeen ko déggee stade bi euh, ñetti waxtu lañ koy tijji ngir rek juróom-benni téeméer nit ñi nga xamante ne ñoom la ñu wax ni ñoom ñoo mën a dugg ci stade bi ndax wopp bi di coronavirus Sénégal Mauritanie ab jongante la boo xamante jongante dabu la war a doon ci gaynde yu Sénégal yi gannaaw dóor yi yàgg te métti yi nga xamante ne dañ leen ko dóor keroog waa marok def ko ñetti ball ci benn kon gaynde yi war nañoo def lay kattan daal di gagné waaye loolee ngir mu am nag faaw ñu daal di pare euh, moralement naka noonu euh, ñu euh, mun di jàppalante seen biir bu ñu sukkandikoo ci kàdduy Moustapha Seck moom mooy coach bu Sonacos ñu teewlu ko ak El Hadj Malick Ndiaye. waaw xam nga match moom match moom boo xasee ba toll fii rek jongante réew ak réew mënatu la yomb surtout mu nekk ñaari ñaari réew yoo xam ne dañoo taqaloo donc dafay am benn adversité. mais Sénégal li mu war njëkk def rek mooy jàngat bi mu am ci match contre li nga xam ak li nga xam ne dox na mu xool li dox mu téye ko li nga xam ne doxul ñu xool nan nañ koy rectifier parce que boo xoolee FIFA bu demee bay organiser date FIFA yi date FIFA yi nekkatul ay match amicaux nit ñi dañ koy wax ay match amiko mais c'est des matchs de préparation nga xam ne da lay da lay permettre li nga xam ni baaxul nga dindi ko mais boo xoolee suñu match contre Maroc am na lu baax mais am na loo xam ne aussi il faut que ñu gaaw corriger ko rectifier ko pour mën a préparer suñu match contre Mauritanie tey jii surtout que boo xoolee Mauritanie dafa jóge ci ndam ñun ñu jóge ci defet donc ca xam nga ndam moom dafay dafay yokk njàmbaar dafay yokk ngóora mais beneen match la beneen match la Mauritanie boo xoolee dañu ko mus a sonal parce que ñoo ko ñoo ko jiitu boo xoolee joueur Mauritanie yi xool joueur Sénégal yi donc ci championnat yi ñuy joué ñun ñoo leen gën am ay joueurs yu baax mais ci benn match moom lu ne mën na xew moo tax euh, ki nga xam ni moo koy gën a bëgg football léegi nekkatul euh, technique nekkatul tactique rek donc euh, am na benn aspect bu am mental mooy mooy bu am importance mooy mental bi donc te match loo xam ni début bi dina xaw a metti mais bañ a yàkkamti euh, ci construction bi ci recherche euh, ci animation offensive bi je pense que bu ñu ko defee bañ a yàkkamti euh, mën nañu war a Mauritanie avec facilité. mais ci lan la tey jii coach bi war a insister ci match tey bi. waaw ci ci surtout li nga xam ne moo nekkoon suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu jàngoro ci match bi passé parce que boo xoolee match bi passé amoon na ay perte de balle yoo xam ne dafa dafa yomb amoon na ay erreur de de placement ak de replacement parce que boo xoolee surtout ñaari but yi ñu encaissé yëpp premier bii bi ak deuxième bii bi man damay wax ay ay problème de replacement bi parce que premier bii bi centre en retrait gardien yi moom lañ gën a ragal donc su fekkee joueurs yi situation yooyu placé wuñu en kankoos xaw ma nuñ koy waxee donc dañuy taxaw taxawaay boo xam ni bal bi bu rombee kii kële ni mu taxawee dina ko mën a au moins même buy laal ballon bi sax dina ko mën a mën a empêcher adversaire bi ci deuxième bii bi aussi boo xoole au niveau de l'axe central euh, ni ñu taxawee dañu dañu dañu jàkkaarloo ak ballon bi alors que foofu dañu war na nekk de biais Moustapha Seck di kii tàggat équipe euh, Sonacos moom sax moom mooy doon ganu xabaar yi euh, léegi euh, ci kanam Sénégal Mauritanie kon tey ci ngoon la bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee foo ca stade Lat Dior bu Thiès mu ñaaxeelu jongante boo xam jongante xaritoo boo xamante ne gaynde Sénégal yi ñu ngi koy amal jëm ci wattaayu li nga xamante ne moom moo nekk double confrontation mu ñaari jongante yoo xamante ne war nañ koo amal ak Guinée Bissau weeru novembre bi ñu dëgmal jëm nag ci mooy segg gi ñu segg équipe yi euh, ngir CAN 2022 euh, football ca tugal la ñu jëm ñeenteelu bëccëg Ligue de nation euh, tey nag programme bi nii la tëddee bu fanweer bu ñeent fukki simili ak juróom toftalwee ci juróom benni waxtu ci ngoon Ukraine moom mi nekk ci ñetteelu place su classement bi bu groupe 4 moom mooy laale ak ki nga xamante ne moom mooy leaderu groupe boobee di Espagne ci boobule waxtu nag jàppale ni Allemagne moom mi féetoo ci ñaareel place classement bi moom dafay daal di dalal Suisse mi nga xamante ne euh, moo euh, nekk ci place bu mujj bi ñaareelu euh, bëccëg éliminatoire mondial deux mille vingt deux zone bu Amérique du Sud tey bu vingt jotee Bolivie moom dafay daal di laaleeg Argentine vingt une heures Équateur ak Uruguay vingt deux heures Venezuela ak Paraguay zéro heure Pérou ak Brésil zéro heure trente Chili ak ki nga xamante ne moom mooy Colombie xabaaru tàggat yaram yi fii la ñuy daat taxaw euh, dañuy daal di wëy rek ak beneen ponk ci xabaar yi euh, di euh, ganu xabaar yi Moustapha Seck di ki tàggat équipe sonakos Moustapha Seck ñu ngi lay nuyu. El Hadj Malick maa lay nuyu. yow nag yaay coach Sonacos bu Diourbel Sénégal war a sëgg tey ji nag ak Mauritanie coach ndax yomb na jouer derby ginnaaw nga amee jël bu diggante ak équipe mag di Maroc. waaw xam nga match moom match moom boo xasee ba toll fii rek jongante réew ak réew mënatu yomb surtout mu nekk ñaari ñaari réew yoo xam ne dañoo taqaloo donc dafay am benn adversité euh, mais euh, Sénégal li mu war a njëkk def rek mooy euh, jàngat bi mu am ci match contre Maroc mu xool li nga xam ne doxul ak li nga xam ne dox na mu xool li dox mu téye ko li nga xam ne doxul ñu xool nan lañ koy rectifier parce que boo xoolee FIFA bu demee bay organiser date FIFA yi date FIFA yi nekkatul ay match amicaux nit ñi dañ koy wax ay match amicaux mais c'est des matchs de préparation nga xam ne dalay da lay permettre li nga xam ni baaxul nga dindi ko mais boo xoolee suñu match contre Maroc am na lu baax mais am na loo xam ne aussi il faut ñu gaaw corriger ko rectifier ko pour mën a préparer suñu match contre Mauritanie tey jii surtout que boo xoolee Mauritanie dafa jóge ci ndam ñun ñu jóge ci défaite donc ca xam nga ndam moom dafay dafay yokk njàmbaar dafay yokk ngóora mais beneen match la beneen match la Mauritanie boo xoolee euh, dañu ko mus sonal parce que ñoo ko ñoo ko jiitu boo xoolee joueur Mauritanie yi xool joueur Sénégal yi donc ci championnat yi ñuy joué ñun ñoo leen gën a am ay joueurs yu baax mais ci benn match moom lu ne mën na xew moo tax euh, ki nga xam ni moo koy gën a bëgg football léegi nekkatul euh, technique nekkatul tactique rek donc euh, am na benn aspect bu am mental mooy mooy bu am importance mooy mental bi donc ci match loo xam ni début bi dina xaw a metti mais bañ a yàkkamti ci construction bi ci recherche ci animation offensive bi je pense que bu ñu ko defee bañ a yàkkamti mën nañu gagner Mauritanie avec facilité. mais ci coach bi war a insister ci match tey bi. waaw ci ci surtout li nga xam ni moo nekkoon suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu jàngoro ci match bi passé parce que boo xoolee match bi passé amoon na ay perte de balle yoo xam ni dafa dafa yomb amoon na ay erreur de de ak de replacement parce que boo xoolee surtout ñaari but ñu encaissé yëpp premier but bi ak deuxième but bi euh, man damay wax ay ay problème de replacement bi parce que premier but bi centre en retrait gardien moom lañ gën a ragal. donc su fekkee joueurs yi ci ci ci situation yooyu placé wuñu en kankos xaw ma nuñ koy waxee donc dañuy taxaw taxawaay boo xam ne bal bi bu rombee kii kële ni mu taxawee dina ko mën a au moins même buy laal ballon bi sax dina ko mën a na mën a empêcher adversaire bi ci deuxième bi aussi boo xoolee au niveau de l'axe central euh, ni ñu taxawee dañu dañu dañu jàkkaarloo ak ballon bi alors que foofu dañu war na nekk de biais maanaam mbagg mbagg camp camp pour que wëlbatiku bu yomb donc boo xoolee placement suñu ñaar défenseurs yi situation bi noonu la même sur le troisième bi aussi euh, boo xoolee coup la am benn joueur bu nekk ci en position de jeu ndax gars bi waa ji dóor mu daw gën donc yooyu yëpp loo xam ne da nga koy préparé wu la pour que mën a am bañ a am mbetteel mais li wétti woon mooy match bi d' abord euh, comme bi la comme ñaari réew yu taxaloo la donc surtout équipe bi nga xam ne moom la ñuy moo supposé être équipe bi gën ndaw dina gën a motiver mooy mooy ci club bi rek boo xoolee équipe junior bi tase équipe senior bi toujours équipe junior bi dafay sonal mais euh, war na mën a nekk bëre bu keeg mbaam euh, te loolu nag boo xoolee naxante la naxante la bañ a yàkkamti mais li wéttu war mooy am na aspect boo xam ne aspect importance la mooy surtout collectif bi ak surtout aspect mental bi tey jii dinañu dinañ am euh, ay influence yu am importance ci ci bi waaw Moustapha yow tamit ku xam Mauritanie nga jot nga fa euh, jaar comme entraîneur ndax mën na jàpp ne fi mu toll ni Mauritanie ñu ngi def effort pour dab Sénégal ci wàllu football. waaw moom laa doon dama koy faral di wax euh, surtout sa sa naataango ñu leen euh, ñun bu ñu nelaw bu ñu nelaw parce que réew yooyu ñu ngi def ay effort mais li wëtoor mooy bu ñu xeeb li ñu am parce que tey jii boo xoolee Sénégal région boo dem am na stade bu weesoo peut-être région de Diourbel mais loolu nekkul Guinée nekkul Mauritanie il Euh, fédération mauritanienne de football comprendre na loolu ba mettre en place au niveau de de la fédération benn académie et Omar Ndiaye bi nga xam ne moo nekkoon ancien capitaine moom la ñu woo pour mu nekk directeur centre bi mais tey jii li Sénégal am en terme d' infrastructure li Sénégal am ci ay centre de formation amagul ci réew yooyu donc ce qui veut dire que bu ñu xeeb suñu bopp leneen li mooy boo xoolee eh, ñi nga xam ne ñooy tàggat xale yi muy entraîneurs yi euh, li ci Sénégal am ak ci en quantité ak ak qualité amagul ci réew yooyu donc c'est que bu ñu xeeb la ñu am mais waruñoo nelaw parce que euh, bi leen rayoon ñu continuer leen ko raye aussi il faut que ñun ñu gën a avancer ci li ñuy def gën a xool la leen pour gën ci kanam pour gën leen mën a bàyyi ci ginnaaw mais quoi qu'on puisse dire euh, réew xam ne ñi ngi def ay jéego ñu ngi organiser seen football donc d'ici ay dix ans dinañu gën a avancer donc ñun nag bu fekkee dañoo bëgg liñ leen rayoon distance boobu ñu gàdde ko ñun aussi il faut que ñu jéem a xool li nga xam ne moom la ñuy def le mieux dans le monde ñu jëm ko copier jéem a xool ni ñu koy par rapport ak suñu réalité su fekkee véritablement bëgg nañoo ñun aussi nekk ci seen kanam toujours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 dara mu neex saa mu may naan sama boisson punch ay goût yu bees neex lool ak parfum yu orange ananas pomme mangue coco limonade ak cola punch cafka bii fi ci sànno moo mën ci xew seen boisson punch moo leen di may li ci yéene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 Mbanok Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 macha allah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire les établissements Mbaye et frères. seen boisson punch ndox mu sell mi di waalo ak SPEM Sénégal premier équipement et machine. ñoo leen may seen revue de presse. Ndeye Mariam Ndiaye asalaamaaleykum mbokk yi déglu daleen ak jàmm weccante kàddu yi mujjee am ci diggante Ousmane Sonko ak Mansour Faye ak kàddu yi nga xam ne barke Demba Ndiaye la ko député bii di Aliou Dembourou Sow daal di fësal di woo mbokku xalpulaar yi ngir ñoom ñëpp ñu yore seen i jaas yi fas yéene nag ak képp koo xam ne buggoo kii di Macky Sall di fi am ñetteeli mandat kàddu yi ni mel ak yeneen yoo xam ne jotoon nañ ko fee dégg loolu de warul loolee la muy firndeel moom mooy ne amuñu lu am solo loo xam ne war nañ cee mën a sukkandiku di ci waxtaan di ci débat ñoom koy déedéet xastante ak yi ngañante la ñuy faral di gën di def li ni sax ancien ministre bi di Abdou Aziz Tall njëkk na naqarlu ci biir colikaay bi di Sud Quotidien ndaxte daal dinay xamle ne coow li ni mel nag baaxul ci république bii di Sénégal baaxul ci nguur gi baaxul ci ñi nga xam ne ñoom ñoo koy faral di fësal docteur des hautes études en information et en communication moom daal di gis ni li waral nag ñuy faral di nemmeeku kàddu yu teguñuwul yooyu ak tamit kàddu yu amul benn fulla yooyu moom mooy ne léegi moom li ñuy tuddee école de parti amatul fenn ndaxte ci école de parti yooyu lañ doon jàngal ñi nga xam ne ñoom ñooy militant yi lan mooy njëriñ ci ab république ak tamit nan lañ ci war a waxtaanee ba léegi ci kàddu yooyu nga xam ne kii di Aliou Dembourou Sow daal dina koy fësal Abdoulaye Thiam daal di xamle ci biir colikay bii di Sud Quotidien ne kooku koo arrêté ndaxte kàddu yi nga xam ne moom la fësaloon ñoom ñooñu di waa Sud Quotidien bokk nañu nag euh, ci ëttub tasub xibaar yi nga xam ne dañoo beñoon daal di koy fësal ndaxte kàddu yi ni mel mën naa yee fitna moom moom di Abdoulaye Thiam di gis ne ba ñu ko defee nekkite yoo moom dem na ci beneen ëttu yëglekaay daal di fay wax kàddu yi ni mel ñooñu daal di koy fësal loolu kon day fexndeel ni ki nga xam ne de moom mooy Aliou Dembourou Sow moom de war nañu ko arrêté ci ni mu gën a gaawee te it ci kàddu yi nga xam ne moom la daal di fësal ëttu yëglekaay di direct news ne la ca gën a yéeme moom mooy ne amul kenn koo xam ne tey jii de mi ngi nekk ci bopp réew mi koo xam ne da nga kaa naqarlu Ousmane Sonko daal di ne jëlati ay di jëm maamu xeer sànni ko nag ki nga xam ne de moom mooy Macky Sall jolikaay bii di Vox Populi mi ngi ñu xamal ne Sonko démb moom ci ab luubalu suuf la daal di joxoñ tuuma ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi ndaxte Ousmane Sonko ma ngay xamle ci biir jolikaay bii di Vox Populi ne Macky Sall dafa jaay yenn ci ay immeuble yoo xam ne moom moo nekk ci xolu Ndakaaru laas yenn kaay ma ngay dëggal li ni mel ndaxte ñoom ña nga daal di fa fësal ci seen xët bu njëkk ne kii di Ousmane Sonko gis na ne nag benn deal bu mag benn luubal daal am na te njiitu réew mi nag moom moo ko fi amee ndaxte dafa daal di jaay ay immeuble rawatina nag immeuble bi nga xam ne moom moo nekk immeuble bi jàkkaarloo ak assemblée nationale autolikaay bii di tribune ñu tamit ay appartement njiitu réew mi jaay na ko ak tamit ci lu tolloo fukk ak juróomi hectares yi nga xam ne moom moo nekk fële di terme sud foofu moom dañu ko jaay ngir daal di fay taxawal seen benn projet wante ci biir autolikaay bii di Las Yaya Abdoul Kane nekk directeur de l' de gestion du patrimoine euh, bâti moom nag daal dinay weddi tuuma yooyu nga xam ne Ousmane Sonko euh, teg na ko ci ndoddu nguurub Sénégal moom muy daal di xam ne ni Ousmane Sonko amul xibaar yëpp yi nga xam ne nag moom mooy tax bu mu daal di euh, jëkkati tuuma yi ni mel ndaxte mbir yi demeewul noonu enquête yéen kaay tey ji daal di def ab gëstu gu yaatu jëmale ko nag ci diwaan bi di Kër Massar mi nga xam ne dañu ko bëgg a mu nekk département jolikaay bii boo xam ne ñii di waa APR ñoom ñoo fa mës a teg seen tànk Kër Massar nekk na it ab gox boo xam ne bu yaatu la te nag tey jii suñ ko waree def mu nekk ab département kon dina am yenn ci ay diwaan yoo xam ne ñu ngi bokk ci Pikine wala boog ñu bokk ci diwaanu Tëngéej yoo xam ne daal dinañu leen taqale ak Kër Massar port autonome de Dakar dafa ubbi woon lu ñuy tuddee emprunt obligataire di ab leb goo xam ne ñoom ñu ngi ci doon séntu ñu am ci juróom benni fukki milliards wante nee nañu nag sama jëntal ga juróom-ñeent fukki milliards ak ñeent lañ ci a am loolu kon day firndeel ne ñiy dugal seen koppar fii ci biir réew mi ñoom wóolu nañu nag waa port autonome de Dakar te it am nañu yaakaar nag ci investissement yi nga xam ne dañ ko fee bëgg a amal fii ci même réew ba léegi ci biir colikaay bi di Le Soleil suñu naataango yi nag di ñëwaat ci diggante bu rattax bi nga xam ne moom moo am ci diggante réewum Chine ak Sénégal te it ñaari njiitu réew yi sax tey jii lañ ko gën a dëggal jeexale ko ak wàllu tàggat yaram kaay di ñëw ci jongante xaritoo bi nar a am tey si ngoon ci diggante réewum Sénégal ak Mauritanie ci diwaanu Thiès dañ ko fas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 dara gën neex saa mu may naan sama boisson punch ay goût yu bees neex lool ak parfum yu orange ananas pomme mangue coco limonade ak cola punch cafka bii fi ci sànno moo mën ci xew seen boisson punch moo leen doon may lii ci yéenekaay yi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 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 macha allah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire les établissements Mbaye et seen boisson punch ndox mu sell mi di waalo ak SPEM Sénégal premier équipement et machine ñoo leen doon may seen revue de presse ñeent fukki simili ak euh, juróom-ñett moo toftalu ci benn wax nañu ci wàllu xam ne fana fàcceer ngi nag gàmmu gi am at yi ñu génn di ko rek moom moo jëm ci wàllu mbas mi kàddu yi ko rotal tey ji nag moom mooy mbay sëñ mbay si Abdou ca Tiwaawoon ah, ginnaaw tamit ci li nga xam moo jëm ci wàllu paj gi ci wàllu mbas mi ñooñu tamit ci li nga xam moo jëm ci wàllu football ak match bi ñuy xaate ji diggante Sénégal ak euh, Mauritanie lay doon 19 lay doon daloon ci gànnu waalo wàllu revue de presse bi ak Ndeye Mariam Ndiaye moo xibaar di sant di gërëm baax Alioune Badara ci wàllu xarala gi ci kàddu gi El Hadji Malick yeneen xibaar yi ak yeneen jamono